ndax turam dindi nañ ko ci liste électorale yi la eh, ci tamit lu jëm ci contumace boobu li nga xam ni eh, moo soxal eh, atem dox ci digganteem ak Adji Sarr léegi moom loolu c'est définitif noonu la ko mm-hmm. yéen mm-hmm. gi xëy fu ko yéen kaay gi Walf yéen kaay ah, euh, euh, euh, gi doxoon ci diggante ak turbine fa la desandi waaye yéen kaay gii turbine dafa mm-hmm. xëyee dellu soir élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal Ismaïla Madior Fall waree na ne Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu euh, wax na ko ci yéen kaay di Jeune Afrique yéen kaay génne neexul ba neex waaye Ismaïla Madior Fall wooñe ne euh, crime bi nga xam def nañ ko jëmale ko ci Ousmane Sonko yéen kaay gi moo xëyee fës loolu ci jamono jooju la élection présidentielle 2024 euh, Bougane Gueye Dany ma ngay mobiliser ay troupam ci diggante Tambacounda Koumpentoum Koungheul Malem Hodar ba yéen a kaay gii di euh, source A. waaw yéen a kaay gii di source A xëy dellu si waat ba tey ci ñi nga xam ne di GPS. Hmm. GPS nag moo di jeunesse patriotique du Sénégal ñoom nag ña nga nekkee fële ca Kébémer nee na fu mu toll nii procureur bu nekk ci diwaan boobu la daf leen a mayatul seen jàmm ah, tas na seen parti benn ñaar mayatul leen fu ñu amate réunion léegi ka nga xam ne nii moom moo di Amerña doon wër kon di taf ay fala ay ay phrase ak ay poster ah, teg nañ ko loxo noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale yéen a kaay gi ne Pastef nag fu mu toll nii ñu ngay mobiliser ay ay fonds ndaxte euh, daanaka Ablaye hmm. ñi nga xam ne ay détenu détenu la ñu nekk si biir prison yi mm-hmm. euh, lépp daal loo xam ne seen lekk la mobiliser nañ ko daanaka lu total ci genn wàllu weer mm-hmm. xam daal mën nañu lekk naan te duñu am benn jafe-jafe lépp nag patriote daal nañ koy mobiliser nañ ko noonu la ko yéen a kaay gii di source xëy fësal l'observateur lu ah, ne Ousmane Sonko moo ko defee réer waxtaan mën am dox ci diggante mag kilifa yi loo xam ne yéen a kaay gii de l'observateur ko fësal te mooy juróom njaboot juróom-ñetti téeméeri njaboot yoo xam ne jamono ji ñu ci ay jafe-jafe li ko waral moo di seen mbokk dañoo dem waaye ba fii xamuñ ci lan lañ ne yéen kaay gii di l'observateur xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu critique fa mu taxaw yéen kaay gii di critique xëy dellu siwaat ci ndajeem xellukaay jëwriñ mi doon amal ni ki dem fële ca palais présidence ndaje moomee occasion la woon ci njiital Rome Sall mu teg pression yi nga xam ay ministre am euh, sàkku daal ci ñoom képp koo xam ne amoon nga ab programme wala nga ab projet nga fexe gaaw koy matal balaa ñoo àgg élection présidentielle yi di ñëw yéen kaay gi li dafay wane ne président Macky Sall mu ngi ci tànk yi tàggatoo noonu la ko yéen kaay gii di critique xëy fësale leneen tamit loo xam ne yéen kaay gii di critique xëy na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. euh, te mooy maître Ciré Clédor Ly mu yëkk ay kàddoom itam di saako ci nguuru Sénégal ñu xoolaat euh, ñu bàyyi xel Ousmane Sonko ndax situation bi muy dund jamono ji metti na te waxtu ne lu nekk mën na am noonu la ko yéen a di xëye fësale 24 euh, heures euh, yéen ne ni yi la ko yéen a di xëye fësale l'évidence ne conseil d'accélération de son départ yéen gi moo xëye fësal lu ni mel gi ne ndajeem xelukaay jëwriñ bi nga xam doon doon amal ni ki démb dajale woon boo xam ne président Macky Sall ma doon accéléré ay ministre euh, su ko defee lépp loo xam ne ay projet la wala infrastructure euh, mu doon loo xam ne lu antu la laataa euh, loo xam ne ni ay logistique la jëm ci wàllu sécurité nañu ko def foofu ci diwaanu Touba ndax bëgg na daal Touba daal màggal gi doon màggal gu mucc ayib yéene kaay moo xëy fësal loolu yi leneen loo xam ne yéene kaay xëy na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. te nga xam ne jamono ji ñu ngi buux politiciens yi di nangu nguur yi seen yoxo yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg a xam ndax ñun gi dañ leen euh, la ko yéen kaay gi di la mandat xëy fësalee enquête euh, génnagul Afrique ah, la kenn coup d'état empire Bongo daanu na yéen gi moo xëy fësal lu ni mel euh, Omar Bongo moo fa nekkoon mu jël nguur ga jàq mu dem jël nguur ga jox doom ji Ali Bongo léegi nag fu mu toll nii mhm. nekk président bu bu bu Gabon santatul Bongo noonu la ko yéen gi di l'enquête xëy fësale le quotidien yéen kaay gi Sud Quotidien yéen kaay gi soit ci wàllu mbëkk wàllu mbënd mi mm-hmm. yéen kaay gi situation bu métti moom la askan wi yeewoo ci banlieue bi rawatina fii ci Dakar jamono ci eh, li ko dalee Rufisque jaar Saint Saint-Louis Diourbel ba feneen ne daal jamono ji ñu ngi ci biir ndox mi waaye leen xaw jaaxal mooy depuis 2012 jàpp hmm. bu Sénégal jël na ay milliards dugal ko ci plan décennal de waaye ba fii mbir yi tey jii la wàllu gën a ay tax yéen gi xëy samp bëgg xam xaalis boobulee hmm. ana fan lañ ko dugal ak fan lañ ko fan noonu la ko yéen gi sud côté nga ñu xëyee di ñu amal hmm. yóbbu ko fële ca Gabon yéen gi tey jii laa leen wax yu mag euh, ak ay ay ay ay chef ay ay maanaam ay kilifa aada ñoom ñoo euh, complot ci seen biir dem ci euh, tubaab bi yàq fa deru sëñ bi ndax mouvement bi mu amoon dafa doon yëy dafa dafa doon dafa doon gën a màgg loolu nag bokkoon na ci li taxandool tubaab bi singeli sëriñ bi jël ko tax la daal di koy jëlee fii ci réew mi yóbbu ko Gabon lu jëm kon ci exil boobu lee la nga xam mu làqoon ci suuf yéen kaay gi leen fa dafa xëy tey ji dañ ko xam lal mangoog ci ay doomi sëriñ Tuubaa yoo xam ni ñu ràññeeku lañu ci biir ci ci ci ci yoon murit waaye jotuñoo toog ci xilaafa gi muy euh, ba ci sëriñ Murtada Mbacke ñoom ñi nag ñu ràññeeku lañu yoon murit waaye jotuñoo toog ci xilaafa gi noonu la ko yéene kaay euh, euh, ji ñu ngi wane seen bopp jamono ji nga xam ñu ngi waajal combat a dox seen diggante équipe bi Algérie nañ ko ci mel ni Sadio Mané génn na joué na ñeenti match dugal ñeenti bi Islama Ismaïla Sarr aussi joué na ñaari match dugal benn but ku ci mel ni aussi Boulaye Dia moom it joué na benn match dugal benn but yéen a kaay gi ne neexul ba neexul waaye fu mu toll nii suñu attaque bi moom mu ngi dox bu baax noonu la ko yéen a kaay gi stade xëy fës euh, suñu lamb lam ñu suñu lamb yéen a kaay ne booy wër ku ku bëgg lu yomb ba daje Gris Bordeaux bu la yaa booy jàpp yéen a kaay gi ne moom Gris Bordeaux euh, boo gisee mu doon xeex pour que ñu randal combat gi war a dox ci diggante ma Ama Baldé du lenn lu may euh, jéem a jaar ci porte bu yomb bi parce que la mu bëgg mooy Ama Baldé bëri ak Modou Lo bu daanee Modou Lo dégg roi des arènes moom su ko defee aussi mu daal di bërëk ki nga xamul Ama Balde amaana aussi bu daane Balde moom it tey gir waa des arènes te fa mu war a jaar jaaru fa yéen kaay gi ne neexul boo defee waaye Gris ku bëggul yombul man ko li ci kanam rawi la gët